kon daal galaaj ngay bàyyi. galaaj bi mun naa ko euh, baax. ñu avancé tuuti benn instant dama naan ban combat moo la gën a marqué ci làmb combat boo xam ne da nga ko wala nga dem stade seetaan ko mu doon combat boo xam ne dafa des ci sa xel mënoo koo fàtte ban combat moo la gën a marqué ci làmb. surtout sama combat wala. non non bu combat boo bëree boo seetaan. bu ma seetaan télé wala nga dem stade seetaan ko. bu ma gën a marqué. waaw combat bu ma gën a marqué. Mhm. Euh, bu ma gën a marqué mooy combat Alioune Seye 2 ak ñett. Alioune Seye day ñàkk waaw combat bi avorté. avorté waaw dafa waroon am quoi. dafa waroon non te métti ñu trop yow keroog gis nga affaire nu mu demee. waaw ah, boobu boobu boobu boobu moom métti carré la gën a marqué ci làmb. Alioune Seye dafa bokk quoi dafa bokk si làmb bu fa nekk si nit. Ah. lan moo tax démb ma ne mhm. mhm. sa war nga de Baye Mandione bu doon may Alioune Seye non non foofu may sens amu fa. Baye Mandione Baye Mandione euh, Alioune Seye de foofu may sens kon dafa war a bëri Alioune Seye combat logique war a bëri Alioune dafa war a bokk dafa bokk affaire bi dafa bokk ci lamb mais fii daay combat daaw si jàlloon nga xam ne nga xam dafa waroon dafa war a bokk ay mbiram yomb voilà benn instant on avance euh, dama naan euh, mbëri kan mooy sa waykat kan mooy way nga kontaan wax nga lu ma neex ay Malé Malé Mbaye men borom Louga Malé Mbaye mooy way nga kontaan. mooy way sama xol bi di liw. Oh. barki yonent bi koo koy sama waykat. aw ma waykat. à part Malé Mbaye. ñeneen ñu si gën ñëpp damay uus. uus rek xaw a kii lay tuuti mais Malé man Malé mooy sama waykat préféré. Euh, kan mooy sa comédien. sama comédien. Ah. comédien préféré. sama comédien préféré euh, euh, Mandoumbé la woon waaye fi mu doon moom Ñanko moom mooy sama. Ñanko moom Ñanko daal Ñanko Faramareen non kenn nga may jox kenn nga may jox. waaw kon jël naa Ñanko. Ñanko Faramareen. waaw borom 100 francs. waaw. Euh, benn instant dama naan série sénégalaise mooy sa série préférée. série sénégalais série mooy la mooy film yi am yi série yi. café avec café avec Mimi tu vois maîtresse d'un man nag la fille. no non man sama sama bi boobu sa jeex na mooy ñooñu doon sol tenue verte yi. mooy ñooñu doon sol tenue verte yi rek. xale jigéen xale jigéen ñi. Euh, brigade Mars. voilà ok brigade Mars moom mooy sa série. waaw boobu ñoom jigéen boobu moo gën tax ma xam ma ko ma si concentré quoi seen sa plat préféré sa coow. ay man de ku may jàpp mu ngi maa jàpp ceeb kecax. ceebu ceebu ko. ceebu bu am ay oignon base ay comme couvre lépp si biir bu bàyyi dara. ceebu kecax mooy sa plat. mooy sa plat. sa plat préféré. préféré day am oignon base am comme couvre am kaani salade am lépp si biir oignon am am am am dugg daal. surtout maa critique bi. Ah, waaw booy yore yore nga sa bopp loolu la benn sant dama naan yaa ngi géejawaay ah. question bi géejawaay bokku ci. fan moo la gën a neex Sénégal ban koñ ban quartier ban dëkk moo la gën a neex Sénégal. si géejawaay fii. non géejawaay bokku ci. ah géejawaay bokku ci. waaw mais à part fii fan moo la gën a neex Sénégal. moo gën a neex Sénégal Sénégal Sénégal. sama dëkk. fan Fuuta. fan ci Fuuta. Nabaaj Suwal. lu bari. waaw moom la gën a nekk Sénégal. moom la gën a nekk Sénégal. waaw te alpulaar laa ko ceeb. dama alpulaar pire. maa ngi gërëm sama waa dëkk nag maa ngi maa ngi jégalu de. Mhm. maa ngi maa ngi maa ngi ñu maa ngi ñu ci fin bi. waaw fin bi li nga am pour gërëm leen. Mhm. Euh, benn instant. ma mhm. ne waat Mbër. yaa ngi Sénégal ah. kon question bi Sénégal bokku ci fan moo la gën a neex ci àdduna bi ban réew. ban réew ban pays mooy pays boo xam ne da ngay rêver un jour teg ko fa tànk. waaw Angleterre. Angleterre.

sama papa dem na Màkka dama di Màkka ñu loolu mooy sa sa météo. nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi loo fi jëlee. nga xëy un ñu ne la àndaw am nga benn réew mi loo tere ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee. lan jëlee waaw.

waaw mooy ama rek man xam rek bëgguma dugg si yenn détails yoo xam ne ni mooy loolu quoi. waaw dan dan dan na say kii quoi moo tax. ba tey c'est pas grave c'est pas grave. mais li ma wax noonu moom ku dégg li ma wax rek di nga xam ne ñun ñëpp teg seen bët war na fa jóge rek. loolu la am boo fekkee rek coow ji ko. te loolu mbir yi nekk ci kaw. kan nga ciy xool rek. sa xel dem ci kii bés bu àddul sifflé woon génn sama diggante ak moom moo war a bëreeg ne kan ngay rêver rek un jour bëree ak moom. te loolu te loolu yu si kaw. aw kanam yi kaw moom fu mu toll nii su ma su ma si waxee moom yaakaar naa ne est-ce que wax bu yàqu ndax balaa maa bëre te mën ñu jël si làmb hmm. dëgg yàlla dëgg rek a nekk. Hmm. xanaa sama morom yoo xam ne daan ñu ngi def seen kuréel. mais day am ku si mel

boo koy seetaan da ngay réer nga ànd si génn seen diggante nga war a bari moom. waaw loolu moom kon moom kon damay jël Modou Lo rek. Modou Lo da ngay réer nga bëri Modou. Serigne Sall. ku la ndax amul tax Modou Lo baat ci Serigne Sall naqarul bëri. dinañ daay wala dafa na waxuma naqare la bëri la naqarewul bëri comme exemple ba bari bëri moom naqarewul.

dëgg la dëgg la nag champion la la. champion wax dëgg yàlla waaye Zerem bi mu wax dëgg yàlla wax. jël na ko waaye waaw wax naaj daal waaw. waaye moom lu ma gën a pour rêve comme li ma li ma njëkk jot si pour mais xam naa ne comme li nga wax ne fii ak 2 ans 3 ans suñu ci yàlla defee jàmm. ma jàkkoor ak ñoom Kewel ñoom waa waa waa Bawol si gars yooyu am na ñu ngi si teg bët. d'accord euh, benn sens dama naan bi nga juddoo ba tey ñu may wax ak ban bés moo la gën a métti ci sa ak jour lan nga dund man bés bu gën a métti si àdduna ak lan nga dund si boobu. bés gën a métti si àdduna. waaw ak si boobu lan nga dund. Oh, non bés bu ma a na moom ak bànneex la mais naxar ak tiis la cee dund ba toll ci aas yi nga ne ma mosoo am lu la métti ci àdduna. non su nekkee si wàllum ay décès moom. mën na nekk si lépp lépp waa pat. waaw kon kon lépp waaw toujours amul benn problème. waaye sama benn nit. sama grand sama lépp ñu naan ko Alpha Dieye uh-huh. dama doon nekk moom guddeeg bëccëg suba ngoon même suñu feebaree damay nekk moom affaire yooyu xam uh-huh. nga tout ça ba ñu génn àdduna daal waaw boobu waaw boobu moom toujours man normal kooku kooku bi nga yëgee ni génn àdduna comme dama doon nekk moom ci këram laa la wax nii hôpital fépp fu muy dem man lay woo ma ñëw nekk hôpital ko lépp ba nu mu feebaree man lay woo ak ku naan Badara ak Abdou Abdou Diouf Mbër xam ne li may wax moom tamit xam nga moom après naa ñëw si moom pour ko affaire yooyu quoi mm-hmm. xam nga waaw ba nu mu gaañoo nii comme exemple nii ñu ne ma ma ma ne tey su ma xëyee suba dimanche bi damay dem daan teg seeti ko quoi. Mm. su guddi si nag ñu woo ma dama mu métti wax dëgg yàlla. mais aussi bi nga juddoo ba tey jii may wax yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna bi boobu lan nga dund. waa lu ma gën a neex ci àdduna moom waaw loolu bëri na trop jox ma ci benn. waaw tey tey imagine dama nekk xale xam nga sama wàll bi ma doon jox. may jënd lekk jënd naan affaire yooyu tout ça tey yàlla def ma dem ba mun a sama bopp tey ba takk sama soxna loolu ma gën a neex vraiment. ok wala maanaam daal jour bi maanaam di ñëw si jour boobu moo la gën a. sama xol liw na trop seet na. bari baa baa ay d'accord on avance. en avançant sama gars yi gis ngeen ne no stress no stress ah. c'est avec andaw numéro 2 bu écrit Waalo moom la ñu ñëwoon seet si ah. mais mbër dama naan rek xam nga tey dama ñëw déplacé wu ñu fekk la ñu yaa ngi relax. waaw maa ngi salon bi gis nga. instant ku la gis am na climat kon du entraînement. non non waaw mais série de questions yi ma andi woon tey tey si lay yem lan ngay tàggatoo. lu may tàggoo mooy di santaat yàlla di jullaat si yonent bi sant suñu ñaari waajur di santaat waa Medina Gounass bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax tamit aw ma ku dul ñoom ak mairie mairie moom doo leen fàtte bàyyi bàyyi mairie sama papa bàyyi Modou affaire yooyu tout ça ma kenn ah. hmm. waaw xam nga su ma jógee ak foofu Abdou Diouf mbër sama xarit sama lépp hmm. borom États-Unis hmm. borom New York waaw fat fàttewu ma la tamit de sama xarit Balla Canal Balla Canal nee na ma am ndaw mënal dawal soo mënee dawal rek pàcc oto yaa benn problème man si jafe man jàpp Mwen di gen bon, fok ni sou mwen pa kon fèr fàm. Mwen mwen fèr salanis la jant. Ni ni si mwen ou mwen deni, non mwen mwen pou mwen repran do a salanis la jant. Mwen mwen mwen aje. Vazi. Kon mwen mwen kouye kèm pou vat ak ten gya yi sou kousin khamon. Gya yi kouye yi ak moun mouni. kon liste nga ma defal fii. waaw ah, liste bi wërëm sax seen liste la ko mos. ah lii ku si mel ni Père Fall. Ah. daf may jàppale bu baax sama xarit sama lépp. Mhm. sama kilifa. Mhm. daf may jàppale ku si mel ni Père Ndiaye. Sokosine moom tamit daf may dimbali di ma jaar te sama waay la daal moom dafa da siy jàpp. Mhm. wax dëgg yàlla da siy ku si mel ni Andaw Ndiaye ñun ñëpp ah dañ siy jàpp bu baax. ba affaire yi daal bàyyi wi ku si mel ne Al Gueye. borom Piroos sama patron moom tamit ndeysaan lépp tawféex xam nga borom tawféex moom tamit xam nga ñu ngi koy siyaar bu baax di ko gërëm di ko jox wàccuwaayam xam nga gis nga daal ñuy def ci réew yi waaw ñu ñaan yàlla yàlla jëm ko defal xéewal ak jàmm ak gudd fan ak wér-gu-yaram mm. ak fan bi ñëpp ah ku si mel ni sama xarit yi dama si jaar ñoom Golo ñoom mm. Lamina ñoom xarit ñu mm. ni ko laa bàyyi kenn ñi nga nekkal fii di ma nekkal fii ñi samay mag ñoom Idi ñoom Yoro xam nga ñoom jaam Miss Merem Ba Fadi xam nga ñu suñu jigéen aji xam nga moom ndeysaan xarit sama xarit jabar la yëg naa ne soxna bu baax sama jabar dëgg bu baax maa ngi bu baax sama yaay sama papa seen naa yow tamit aw sa fay wax dëgg yàlla maa ngi ziar baax a baax di gërëm tamit Yacine Yacine Ba bi koy gërëm bu baax xam na moom Karbala ñoom Père Max Père Max bu ndaw xam nga bàyyi ma kenn xam nga aw bu ndaw mëne uh-huh. sama tubaab sama tubaab bi waaw tubaab bu ñuul waaw tubaab bu ñuul ma kenn rafet na rafet sama xool seen na daal di sant waa Amatofis bi tamit maa leen ziar bu baax leen gërëm uh-huh. xam nga waa cité bi ñoom Père Bàcc Bàcc sama xarit soxnaam Njaaya ay gërëm ñëpp daal bàyyi ma kenn daal tout ça eh, euh, ah, sama gars yi sama gars pour ñi ko xamul woon ñi ko xam xam nañ fi mu jaar même ñi ko xamul woon andaw mi ngi nii c'est l'un des meilleurs de sa génération déwén nag moom xam naa ne dafay dellusiwaat ñoom ñàkkante ko gars yi. non di leen jox gars yi waajal leen de. ok waajal leen bu baax. moo ko wax leer laa wax waajal leen. kon gars yi waajal leen waajal leen de. waaw di leen jox rek dig daje ba beneen yoon. nekk leen bu baax jaar jaaraat sama gars yi. jaajëf sama gars yi jaajëf. peace and love. love peace.